Euh, jërëjëf mbokki réew mi mbokki internet yi bàyyi xel MPROD TV mbokk yi tey borom xam-xam la ñu seet si waaye doomu daara muy kilifa la maamam yi nekkoon ci loole la nekk ni nga koy gisee nii bëri na ay borom xam-xam yoo xamante ni dañuy ñëw sukk ci ñoom mu leen di jàngal xam-xam rawatina secret seet mbokk yi kii seet yaakaar naa ñu bëree bëree bëree bëree bëree bëri jox nañ ko ci bopp rawatina mbokki sëriñ si des fois nga ñëw ci ñoom sax di seetlu ñun la demal ci sëñ Fallou ndax. xam-xamu seet yàlla ko cee may rawatina li nga xamante ne mooy istixaar te danañ waxtaanee njariñ danañ waxtaanee xam-xam moom du bëgg di feeñ ci média waaye xam-xam bi ko yàlla defal moo tax ñu ne ko tey sëñ bi faaw nga génn feeñ ci média bi ndax ñi xam bu ñu toogee ñi xamul tamit dañu gën a sànku sëñ Fallou dañ lee bàyyi nga nuyoog askan wi ñu soog a xuus dugg ci dëgg-dëgg waxtaan bi sëriñ bi ñoo ngi lay siyaare. waaleykum salaam eh, suñu dégg ñu ngi leen di delloo nuyoo bu baax di leen ndokkeel ci teew gi ngeen teew ci daara ji Euh, di nuyu mboolem ñoo xamante ne ñu ngi xel ci seen site am solo bi mm-hmm. di wax asalaamaaleykum wa rahmatullah euh, ahos billah bismillah inna waliyallah la hawla wala quwwata illa billah rabbi sahdi sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli wa kun muhimsan min sarri si ansadin ma sarri famin wa sarri alayni sihrin wa sarri xalqi insihimo ma jënni wa sawaati sumi ñu ngi nuyu mboolem ñu bàyyi xel di leen ñaanal suñu kàddu fekk leen si jàmm. di la wax bisimilah takallam. waaw ah, tey sëñ bi bëgg naa ñu waxtaanee lu bëree bëri rawatina njariñ ngay borom xam-xam boo xamante ni gis naa ay mag yoo xamante ni nekk nañ ci dëkk bu sell bii di Touba ak li ko wër nangul la xam-xam bi la yàlla may rawatina mbirum seet ak istixaara ah, tey yan preuve nga ci def ba tax ñu bëree bëree bëri tey boo nee seet ak istixaar rek xel yëpp dem ci waaw alhamdulilah jéeg laaj solo muy loo xamante ne ni xëy na ñu bari ñu ngi nekk di ci wax waaye dëgg dëgg xam ba xëy na gisaguñ ko sax boobu na sax yor nañ ko waaye gis gis sax defaguñ ko. yàlla nag dafay dafay maye ndax wa annal fadla bi yadillah yuti ma ñu saaw. na foofu la yàlla dugal muy loolu mu wax ngëneel mooy mooy mooy xool ku ko soob mu defal ko ko. dañoo dugal ci aaya boobu. wax alhamdulilah bu ko defee seet moom am na lu ñu wax ramlu muy loo xamante ni lu wér la eh, mu ngi wàcc ci yonent yàlla Idrissa euh, moom ku ko ku ko mën moom amul loo ci munta wax doomu aadama bi waaye ñun nag mën nañ ko waaye taxul ne newul ne ci yoon woowu lañuy ñuy gëstulee nit wàllu listixaar li nga xamante ni dangay bàyyi ba guddi nga julli say ñaari rakka am yoo def boo tëddee ñu xamal la mbiri nit ka hmm. ñun loolu lañuy def muy loo xamante ni lu sell la te it képp kuñ ko def li tax nit ñi xam ñu ci baax mooy képp kuñ ko defal mm-hmm. wallaahi wa danañ la wax lu wér ci sa mbir mm-hmm. ci li nga xamante ni xëy na ci nga toll mm-hmm. ak li nga xamante ni mooy li fiite li li nekk ci sa kanam li ñëw danañ la ko wax te maanaam danañ la wax sarax si nga xamante ni war nga koo def ah. muy loo xamante ni xëy na sarawxaan moo koy laaj boobaa danañ la wax sarax yi nga xam moo ci aju boo defee it wàllu ñaan bu fekkee am na ca it danañ la wax yéen xeeti ñaan moom nga war a def mm-hmm. ndax it nekku ne li saxaar yëpp ay am sarax wala yëpp ay am ñaan mm-hmm. des fois nit ki bu fekkee bàyyiwul boppam uh-huh. boo ko boo ko defalee li saxaar mm-hmm. mën ngaa gis ay mbiram waaye xëy na ñàkk gum ñàkk bàyyi boppam ci wàllu gàllaaju dana tax kooku doo gis ñaan doo ko war a defal ñaan waaye danaan la ci sarax bii rek moo ko dese na ci def sarax bi ay mbiram tàkk ba faaw yenn saa yi nag nga xoole koo xam ne ku bàyyee ni comme yow mi dégg maa ngi jégalu bu ko defee ñooñu maanaam dañ lay wan ñaar yëpp mm-hmm. mën nañ laa wan sarax bu fekkee ku bàyyi ni ko mm-hmm. mën nañ laa wax sarax ne la kii faaw mu def sarax sàngam mm-hmm. waaye it faaw mu def ñaan sàngam bu ko defee kooku maanaam yoon wam tege dana ci am yaqin bu baax ne dana àgg fa jëm te benn fakka fakasal doo dootu ko dal te damay wax ne jamono bii nag ku nekk war naa jug wut lu ne lu lu na kët ndax dañ maanaam wut lu ne jonn ndax dañuy wax ne lu na kët lu ne jonn moo koy faj. kon ku nekk war naa mun a jug wut lu ne jonn. waaw. Mhm. kon lu am solo la euh, tey sëñ bi euh, am na xamb loo xamante ni yàgg naa dégg ñu koy wax mais bi ma dikkee ba gis ko gisal ko sama bopp gis li nga ko composé ak njafaan ci def ci laa ne ndekete xam-xam rek moom moo wóor tey xamb loolu ndax mën nga cee andi ay leeral yu am solo ak lan moo ko tax a jug. alhamdulilah jërëjëf ci laaj boobu xamb li nekk na loo xamante ne ni nekkul ne ñun ko créer wala nekkul ne ñun ñoo ko sos mm-hmm. waaye xam-xam bu wér la boo xamante ne nii doomi sayxul xadim ci moom la jógee ñu koy wax xamum góor gi bu fekkee yàgg ngaa dugg ci àll bi war nga ko mën a xam waaw fekkee xam nga waa Touba boog war nga ko mën a xam mm-hmm. ndax doon na loo xamante ni ci suñu ci yor mm-hmm. ci ci ci ci la ci liñ ci yor ñun muy loo xamante ni wax nañ ne moom la defaloon président bi fi nekkoon muy muy muy muy son excellence Abdou Diouf mm-hmm. moom suñu Abdul Ahad defaloon na ko loolu xam góor gi Abdou Diouf moom sangoo na ko sa ngoon a xam ngóor gi mu doon loo xamante ni lu wér la day sagal doomu aadama tey ci ki mu gën a aay moo xam ki nga xam dafa nekk ci àll kooku bu ko jëfandikoo tey li gën a néew ci teraanga muy muy muy muy dëkkuwaay ak waruwaay mhm. yàlla xam ne ku ko sangoo danga ko am ndax man donte xëy na xeebu nañ ci jëmm nii waaye kër moom am nañ ko mhm. am nañ ko fii ci Touba te 2019 lañ wut suñ kër bopp mm-hmm. te ñoo génne xaalis jënd ko mm-hmm. te loolu gannaaw bu ñu jëfandikoo mu góor gi lañ ko am mm-hmm. waaw te li muy joxe loolu moo ci gën a ndaw rawatina nag ci koo xam ne dafa nekk ci àll bu fexee ba am loola mu sangoo ko ci yaramam wallaahi war quraan asim kenn du gis gàccaam ndax day sagal doomu aadama ñi nga xam te ni nekk si millier euh, soo bis bi tamit nga xam ne concurrence bi dafa bëri ku ci fexe ba sangoo am xàmmu góor gi sangoo ko yàlla xam ne li ñuy wax li ngeen di faral di wax xaw ma ngeen ko tudd buzz dana dem ci kooka bur dana dem ci ay loxoom mm-hmm. mu doon mu doon loo xamante ni lu lu wér la nit du ko sangoo di am ay gàllankoor ndax ñaar yëpp lay def li muy njëkk def ci nit mooy defal ko kaaraange loo xamante ne nii lépp luy xeetu wërsëgam te yàlla mm-hmm. mm-hmm. lu wér la waa Tuubaa yi xam nañ ko bu baax waaye nag yombul nit teg si bët yàlla dimbale la dëgg mooy tax nga taseeg moom. Hmm. waaw muy lu am solo lu am doole wax dëgg yàlla. mbir mu am doole la te mbir mu am solo la. am na solo lool wax dëgg yàlla tey tey ñi ñu bàyyi xel wax dëgg yàlla xam nañ ko ñi nga xam ne jëflante nañ ci ak ñoom xëy na jëmi àndal xaw naa jafe. Hmm. ndax day ànd ak garabu neew defe naa war nga koo xam. waaw am na xob ya am na lim buñ cay wut. mbind hmm. bi bëri na lool mbind mi bëri na lool moo tax yombut waaye nag damay faral di wax ne lépp loo xamante ni dana tax aadama bi ay mbiram ñoŋ dana tax it mu am ay milliards wala ay millions loolu lu ko nit jëndee rek jar na ko. Hmm. waaye nag yombuta am. tey am na dugub boo xam ne xëy na seen côté Gossas yooyu. Hmm. fa lay fa lay ëppee côté Saloum bi muy suuna xuun la tudd. waaw moom da cee ànd moom hmm. tamit nag lim bu lim bu toog da cee ànd waaye nag na yooyu yëpp jafe na waaye ñun yàlla dénk nañ ñu ko. ndax it da am am nañ ay ndaw yoo xam ne ñoo ñu toogal ci àll bi nga xam ne saa ñu soxlaa yooyu rek. ñoom dañuy jug ko indi ñu ko. mu doon lu wér a wér lu waaw ah, tey jii sëñ bi su laa mbirum nopp ah, tey lan nga ci mën a leeral nopp ak ni mu doyee waar nopp ak ni mu jafee ñu dégg ne yàlla may na la ci nopp bu baax a baax. waaw alhamdulilah laaj nga lu am solo. Mm-hmm. wàllum noob moom wax dëgg yàlla moom tamit bokk na ci eh, jagle ak jagle daal lañ ci am wax dëgg yàlla. Mm-hmm. it duñ boole ay nit maam ñaar sax dafa tuuti ci ñun waaye ay mboolu groupe nit ñu am ay yàqu-yàqu dëngoo am seen biir. Mm-hmm. yàlla xam ne ci ñett fan duñ ci weesu. Mm-hmm. ñetti fan liñ ci yor di ko liggéey ñetti fan duñ ko si passé te ñooñu duñ juboo waaw tey def nañ ci ay résultat yu bëree bëri mm-hmm. moo xam nag ci nit ku xonq ki nga ko bëgg wala ci nit ku ñuul gi kum ci mën di doon mm-hmm. wallaahi wa taala si 72 heures duñ ko passé la nga bëgg ca moom dana mel ne sab takk ndeer la nga bëgg sa kooka dana mel ne sab takk ndeer foo jëm dana ca ànd ak yow muy lu wér a wér li ñu ci yor ñun lu wér a wér la mhm. tey ñu ngi ci sant yàlla bu baax tey def nañ ci ay résultats yu mucc ayib loolu ñu ngi ci sant yàlla bu wér a wér mhm. ah, tey bëggoon naa nga dugg ci loo xamante ni ah, sénégalais yu bari yi nekk bitim réew lañ ci faral di jàmbat muy mbirum këyit këyit nekk loo xamante ni lu doy la këyit nekk loo xamante ni lu jafe la mais sëñ bi yan ñaan ñoo gën a gaaw ci defal nit ki këyit ok loolu it am na solo ndax it kayit moom doon na loo xamante ne nii euh, nit ki bu ko amul rek xëy na lum lijjanti mën naa bañ a sotti mm-hmm. waaye nit ki bu ko amee it moom tam lu ko nit jëndee jar na ko ndax nit ki bu amee kayit mun mm-hmm. naa am ay millions mm-hmm. nit ki bu amee kayit mun naa am ay milliards kon alxaaj kayit boobu est que lu ko nit jëndee jaru ko nit lu mu jëndee kayit boobu kayit bi tax mu mën a nekk millionnaire wala milliardaire jar na ko mm-hmm. xëy na yenn saa yi li tax nit ki di ko sàkku muy xaw a dëgër mooy bokk na ci nit ki nga xamante ni dafa am ay gàllankoor ci yaramam mm-hmm. wàllu njabar wa muy bëtëg làmmiñ muy cat mm-hmm. wa it muy li nga xamante ni tooke xëy na tooke buñ ko waxee mooy làmmiñ bi nga xam ne dafa am tooke bu dee tuddi nit ki rek mën naa def ab jeexital ca nit kooka waaw wala àndaale li ñuy wax yi na mm-hmm. lool it mën naa sabab nit ki di lijjanti xeet yooyu mu bañ a sotti mm-hmm. waaye bu buñ ko gëstoo ci wàllu listixaar ba gis na kii kat yii ay gàllankooram bu soobee yàlla buñ ca defee am na ñaan goo xam dañ ko cay def am na sarax bu muy àndal waaye loolu képp kuñ ko defal ci wàllu këyit moom loola dana dana la yomb danañ ak lu mu jafe-jafe lu mu diis diis danañ ko jël teg ko ci say loxo. Mm-hmm. waaw am na loo xamante ni tamit bëggoon naa ngi dugg ci ànd ci ay leeral muy euh, ndomb ak ñett ñett gi su ndomb ak ñett ñett gi mooy lan. waa koy ndomba gi nekk na loo xamante nii lu lu am solo la ci jamono bii ñu toll. ndomba ak ñett-ñett gi nag comme xëy na jafe na it jafe na lool ndax it xam-xam bu wér la. xam-xam bu riis la boo xam ne man rek maa ko am te man koy joxe. mu doon loo xamante ne nii nag maanaam jamono bii ñu toll nit ki ne war na ko mën a góorgóorlu ba am ko ndax it daanaka nit li koy gàllankoor dafa bëri lool. Mm-hmm. te kaaraange dëgg dëgg kaaraange moo nekk ci biir. Mm-hmm. ndax it nit ki mën nay dox. Euh, ñi nga xamante ne amuñ gis xol mën nañuy dox. Mhm. rawatina ñu nekk si biti wala ñu nekk ci biir réew mi mën ngay dox te doo gis li ngay tesee lan la. Mhm. mën ngay dox nit sànni la ngelaw mën ngay dox nit sànni la korte. Mhm. yooyu yëpp da ci am mën mën ngay dox it nit nekk sab noonu noonoo la toujours mu la yàqal. bu ko defee it loolu bu la yàlla dimbalee ba nga am ndomba gi yàlla dana la tàqaleeg xeeti yooyu yooyu nga xamante ni dafa dafa lënt yow amu accès àgg fa yàlla dana la mu ci loolu. wallaahi ku ko am da nga ci mucc. Mhm. waaw muy muy loo xamante ne nii daal kaaraange fa la yem. fa la yem ah, tey jii am na loo xamante ni mu ngi ci dëkk bi muy soxorante bi siisante bi defante lu ñaaw dangay nekk ci bërëb di liggéey am ko tollu fële di la njabar di la sànni ay fett saalum ki kort tey ku bañ ko la yàq yan gàllaaj ñoo gën a gaaw ci li nga xamante ni mooy kenn du ma yàq ku ma laal am problème. waa kay gis nga ndomb gi ñu wax sànq. Mhm. wallaahi ku ko am wàllu noonu moom danga koy dégg rek mhm. bu fekkoon ne danga dalaa fekk nga am ay noon sax boo ko amee yow da nga da da nga maanaam ñoom danañ ju judd ci ay jafe-jafe ba nga xamal ko sa bopp mu doon loo xamante ne nii li ma ci wax sànq rek kaaraange ëpp ëpp ko ëpp ko doole ndax fa la kaaraange yem waaye nag nekkul loo xamante ni lu yomb la ndax liggéeyin bi moo xaw a jël temps te am na yecee ànd yoo xamante ni lu xaw a raar la ci jamono bi ñu toll ci àll bi loolu moo tax waaye lu wér la loo xamante ni képp koo xamante ni Eh, bëgg nga yàlla muccal la ci wàllu def defi noonu boo ko mm-hmm. amee moom da nga ci mucc te it ndomba gu simple la lu ndaw la doo ko takk muy ju muy jóngaalal ci sa nigg gannaaw lu simple la wax dëgg yàlla lu simple la ah, sëñ bi gisee doxalinu jamono ak politiciens yi lu ñuy doxalantee saagante bi ak waxantee lu ñaaw li waa kay loolu moom xay na ña koy def eh, dañoo doyadi rek waaye bu fekkee ne nit moom yàlla def na ci yow ab cër mm-hmm. wax dëgg yàlla war ngaa mën a gëm gëm yàlla gu toll ne jarut nga cay tiitaru ndax it yàlla rek moo yooyoo tiitaru waaw jaru it nga cay def loo xamante ne nii njuuj njaaj la ndax ala kulli aalin lu ca lu ca waay def ci wàllu googa ëllëg da nga ko la yog uhuh. moo tax it li ci am solo rek mooy li may wax gaa yi may ñaanal rek ku ci nekk bu fekkee am nga ay ndomba tànk góorgóorlu ca loola nga def ca ak njub ndax it ëllëg xalaa kulli xaalin danañ fa jaari te loolu lu mat bàyyi xel la. Hmm. waaw si Fallou lan ngay tàggatoo ak looy wax askan wi lay suivre ci MPROD TV bi. waa kay na bala ñuy tàggatoo am na lu ma bëggoon ñu leeral ko doomi aadama yi. muy wàllu sëy. waaw xëy na tey ji jamono bii bokk ñu ngi ñu ngi dégg ay sëy yu bari di yëngatu ak a tas. Hmm. loolu li ko sabab du lenn lu dul xëy na dem gëstu loolu avant ñuy dugg ca néegi sëy yooyu loolu nag lim mën a jur dafa bëri lool ndax yi dafa am ci wàllu xilmu nujoom luñ ciy seete ci wàllu seet euh, maanaam nit ki nga xamante ni dafa nam ma dencante wala sax ñi nga xam dencante nañ ba noppi yi ñuy wax nii ñu gis ko ci seen biir couple maanaam maanaam da ngay jël nit ki turu nit ki moom ngay xadat ak turu kam nam ma dencal kam na maanaam nit ki ak kam na ma dencanteel. seen ñaari tur boo ko àndadee. Mm-hmm. da nga ci dolli siifur sat. Mm-hmm. boo ko ci del dollee maanaam di ko di ko am na lim boo ci wàccee di ko ci moye. Mm-hmm. boo koy moye moom dana la yóbbu un ba neuf. dana dal ci benn siifur bu fekkee dafa dal ci un. kooku moo lay wax ne la sëy bi maanaam ku góor ko moom dana ca dal ndax ngoro ga du yëngatu daal day yomb ci moom lool ngir mu takk ndaw sax. waaye nag da lay wax ne la amut ak mujj. ndax it maanaam du ko yokk du ko wàññi fi mu nekkoon rek fa lay nekk. am na ñoo xam ne ñu ngi dund loolu bañ takkee soxna ba léegi benn place lañ lañ nekk. loolu it bu fekkee am na am na leneen lu ko mën a wëlbati ci kaw ni nga ni nga jëlee adat yi am na noo koy jëlaatee génn ko ci xaalis génn ko am loo ci jënd génn ko sarax am ñaan gu ñuy wax xaatikata. Mm-hmm. loolu mag ñi ñoo ko yoroon xëy na ndaw ñi ñu bëri yoraguñ ko fi mu toll nii waaw xaatikata googu it boo ko jëlee am na loo leen cay defal ñoom ñaar mhm. bu ko defee bu fekkee ci deux la taxawee deux bi moo naan la sëy bi barkee na loolu mun ngaa takk ndaw si mhm. bu fekkee trois la nag moo ci gën a yées ndax danaa la boo ko takkee da nga ñàkk ba da nga yalwaani mhm. yooyu yëpp nag dafa am solo bu fekkee quatre bi la moom moo lay wax ne la maanaam da ci tawati yaram ngeen di dëkk ndax yenn saa yi nga gis sëy boo xamante ni moom lañ gëstu woon wala ñe leen ko gëstul xay na xamuñ ko maîtrise wuñ ko dëgg-dëgg waaye lu mat a bàyyi xel la waaye lu ci am nag bu fekkee ñi nga xam ne ñu ngi ci seen biir couple gise yooyu am na lu ko mën a saafara bu fekkee ñi ko nam ma def it yooyu am ca am na lu ko mën a saafara waa ndax li ko li daa in dawaa bépp jàngoro boo gis am na saafara ba ci bàkkaar sax istifaar mooy saafara am mm-hmm. waaw ac kon mbokk yi dégg ngeen waxtaan am solo yi nga xamante ni euh, Serigne Fallou euh, waxtaan na ko mu nekk waxtaan woo xamante ni njariñ la te lépp di xam-xam numéro yaa ngi noonu affiché ci suuf ecran bi képp koo xamante ni woote nga ci rek di nga jot Serigne Fallou mbokk yi doon topp di ñu suivre ci MPROD TV yàlla ngeen am jàmm ci darajey Muhammad Rasulullah